waaw comme ni nga gisee xeex bu métti moo fi am waaw cool cool. chaise yi taf xeex bu métti moo fi amoon. xeex bu métti fi amoon xeex bu métti assemblée générale APR Pikine tas na. li ngeen def nii mooy lan li ngeen def nii mooy lan. waaw loo xam sànq doo jox ñaari baat

waaw comme ni ngeen ko gisee ne ah bon xeex moo amoon assemblée générale APR Pikine tas naa xeex bu métti dóorante ay chaise chaise yaa ngi nii gis ngeen ko lu ci bëri yàqu na oh, chaise bi ci bëri yàqu xeex bu métti moo amoon waaw bon lu ko waral ko on va essayer de promise. Guys, full one, full. Omar dañ leen filmé de dama la wax leer gaa ngi jël Mohamed Modou Jalle yow yow ma ne eh, yow kii ma gën a permettre boo def ay gars yi jël mag yow Thank you.